ngi leen di nuy di lu seen ànd ak télévision Futur Média di leen dalal jàmm seen émission li ci penc mi alxamis ju ne ci kàttanu borom bi ñu ànd ak yéen ci waxtaan tey nag ñu ngi daal di taamoo waxtaane wàllu sëy yi Sénégal seetlu gi mooy tas yi dafa bari ndax xam ngeen ni sëy dagan na tas dagan waaye li waral ñu taamu ko waxtaane mooy dafa xaw a takar naa sëy aslëf ba daanaka yëf yi jege tasaaroo tàggoo yooyu lan moo ko waral lan moo ci mën a indi saafara lan moo war a mën a gën a indi nit ñi gën a jublu ci cëy ca ba li nga xamante ni mooy tàggoo gi tànk yi rawatina ci penc mi également moo waral tey jii sunu euh, pencoo ak man ci plateau bi di avocat maître maa ngi lay bu baax di rafetlu sa teewaay. maa ngi lay fay jërëjëf Sall dinañ ànd euh, ki nga xamante ne mooy Serigne Laxbib Ndiaye moom nag psychologue la sëñ Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay laaj euh, dig ma a ñëwal ci gune yi ndax xam naa ni c'est vrai que mag ñi xëy na mun nañoo muñ yenn yi ak tàggoo bu amee. Hmm. waaye gune yeeg wàllu nañ koy dundee seen ëllëg ak yeneen maître Alaaji Diouf avocat beneen moom it ndax xam ngeen ni saa su ne daf ci am sëy yoo xamante ni même bu ñu ko takkewul tribunal fa lañ koy faral di tase maître maa ngi lay nuyu sama xarit Aja Assane maa lay fay. jërëjëf yaa mbégte ñëw fii. ci sa invitation jërëjëf. jërëjëf Diouf ñun tiit am nañ ci mbégte loolu la xam ne ni yitte yi bari na waaye ñëwal nga nu également ci plateau bi incha allah ci kanam tuuti Oustaz Mor Thiam moom it war fi taxawal diine ji islamologue la dinañ waxtaan ak moom ci la mu gis ne pexe ngir rek ak jubbanti ci phénomène bi nga xamante ni mu ngi bëgg a ëpp dayoo. ni nu ko waxee bari na li koy waral nag it bari ay gis-gis waaye du ñëpp ndax am nañu say juróom fukk jàpp juróom benn fukki at euh, Kambel ci wàllu reportage kon ñu ànd moom Kambel Dieng laata ñu ñëwaat ci plateau bi ci waxtaan wi ci li waral say yéeg li ci mën a indi saafara ci tas yu bari yi. ci wàllu sëy la ci yoon wax. mooy ñaan ñi nga xam dañ doon dencante te ñu am kayit boo xam ne état civil daf ko délivré. ah foog ñu am këyit. waaw parce que c'est une précision quand bu xaw am importance tas boo xam dañ ko def ci mbirum aada wala ci diine. même bu dee valable na kooku yoon reconnaître dëgg bi mooy la amoon démb suñu baay yi di ko sëyee ak suñu yaay yi amatul léegi lu bare dafa changé. góor ñi ku nekk boo sañoon da ngay wax ni sama baay yore woon këram laa yore sama kër maanaam bëgg na sa baay daan doxale kilifteef nga amoon eh, nga am ko euh, te loolu jamono dafa soppiku. te jigéen ji bu xëyee liggéey nga xëy liggéey bu weer dee mu am saleeram am am tuuti indépendance économique am bu wuteeg bu njëkk ba. jigéen jooju yaakaar naa boo ko jàppee ni jigéen bu njëkk ba rek boo ko fasewoon tey sax doo am fu mu mën a jëm wala boo ne ko génneel kër gi mu nekk ci moom problème kooku jigéen di donc statut changé na. taqali ko nag ci wàllu sëy ñaari pàcc la am na benn bi nga xam ni ñaar ñi dañuy d'accord ci lépp maanaam xale yi ku leen di yor jëkkër ji tamit euh, la muy joxe ci wàllu dundal xale yi lu mu toll bu fekkee nag dañu boole woon seeni alal ñu xool kan mooy am lan foofu nag juge bi du am benn jafe pour teqale ñaar am na beneen bi nga xam ne nag moo faral di gën a am moom mooy bi ànd ak coow boobu nag avocat yi daañu ñëw waaye nag laata ñuy àgg fii yëpp juge bi dana bàyyi way dencante yi ñu xool toog ab diir ndegam daanu juboo am déet am na nag article 166 bu code de la famille ku wax na ci yan anam la àttekat bi mën a teqale ñaari way dencante. abandon de domicile conjugal. maanaam dematoo fanaan yi daal. voilà ba ñu constaté ko parce que il faut ñu constaté ko et la plupart du temps huissier de justice a koy constaté lu si mel ni stérilité wala maladie bu grave absence maanaam kenn koo xam ne toog na ab diir kenn gisu ko kenn xamul si lu mu nekk ki nga xam ne mooy ku góor ki te yoon teg ko mu war a dundal jabar itam ak njabootam bu si bu ko deful loolu tamit juge mën na si sukkandiku prononcé si divorce yi mooy défaut d' am na beneen tamit bi ñuy wax refus d' exécution des engagements pris en vue du mariage dañ li ñu si jublu mooy ñaar ñu bëggante denc bu pare am si njaboot donc dafa bokk si pacte bi donc kenn amul sañ-sañ si ñaar ñooñu di dencante jël décision délibérée ne du ma am doom bi si jën a fréquent nag mooy incompatibilité d'humeur ñoo xam ne dañ doon dencante leen na si biir daal réeroo am na. taqalikoo nag bare na trop ci wàllu sëy fi ñu toll nii loolu yëpp pour dakkal ka mën nañu delluwaat ci lu yàlla wax ñu méngale nag kàddu woykat ba. maanaam bëy bu àndul ak moroomi bëyam bu moytuwul ànd ak ki cere lislaam day wax dafa boole ci sarti sëy al kuf u al kuf u buñ ko firee ci wolof firi yenn yi d'accorduma ci parce que danaan mooy nawle fii bu buñ ko firee nawle dañuy foog ne mooy diggante géer ak ku dul géer géer ak ñeeño du loolu islaam jubluwul kuf u iblas islaam jubluwul ci loolu kuf u mooy koy toll ak classe ko bokk classe sociale ko toll ak situation mais bu fekkee ne ñaar ñoo xam ne bokkuñ benn classe sociale bu ñu bokk ñooy sëy sëy booba lu koy dog dafay yomb. taqali ko bare na lool ci sëy yi rawatina ci xale yi. torop torop torop torop tribunal départemental Dakar audience divorce yi les mais mardi lay tenu mais boo demee si couloir ba sa yaram day daw li fa nekk si doomu aadama doy na waar doy na waar bari na bëri goo xam ne moi je pense que ne sociologue yi sax war nañu mën a réfléchir sur cette question là. ay xale yu ndaw daal ñoo fa ëpp ñuy ñëw te boo xoolee ñu si bëri tamit ba ñuy dencante matul sax at am na ñoo xam ne sax ñetti weer lañuy dañuy def ñëw euh, pour tas. ndaw si nag am lu toll ci juróom fukk at ak juróom benn ci biir sëy moom nag di ñu wax sa këram lan la. nit da muñ booy sëy te yàlla tax laa wax de waxuma sëyu alal ndax sëyu alal bu yàggee nga génn ci waaye boo muñee ngir yàlla mur ngir sa njaboot. sëyaluloo sa jëkkër sa njaboot ngay sëral pour ëllëg ñun tukulóor dañu ne ku muñul saxaar doo am këriñ ndax pour la fuuta ya ci àll bee di wut këriñ di def saako di ko indi di ko jaay dañoo muñ door a sa am saako yu indee ndakaar di ko jaay ma ne ku ma déggal di nga muñal sa jëkkër alal jeex nit boo ko jàppee alal bu alal ji jeexee nga bàyyi a ñaata at koy def si yaa ah, juróom benn fukki at de ñeenti at laa dese. yaa ba ci duggee ba léegi. ci kattanu yàlla julli ci Moustapha te lu baax rek laa ciy def it dama ne ku ci bëgg a sëy dëgg te yàlla tax te déglu leen seen si doomam di wax ñu ne ko déglu leen ko da koy muñ pare naa nag. jërëjëf waay kontaan de. <laughs> Kambel Dieng ñu koy gërëm saa su ne rek mu baaxee ñu reportage yu macha allah ànd ci nag ak yéwén gu mat sëkk Kambel jaajëfati ci kanam tuuti dina daal di interroger ñeent ci doomu Sénégal ñoom it ñu joxe ci seen xalaat euh, di fàttali ni ci wàllu réalisation bi ku bëgg a dugg ci waxtaan wi it euh, yokk ñu nag yoon la ñu wax ci wàllu xalaat ndax xel du doy euh, dinañ la ubbil bunti TFM ci wàllu waxtaan wi Oustaz moo Thiam ju ñu naa ko sànq xam naa yaraaxa yaraaxul ci guddi gi ndax embouteillage moo tax Oustaz maa ngi lay nuyu <laughs> maa ngi lay fay di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi yëpp di nuyu maître di nuyu suñu mbokk yi nga xamante ni ñoom lañ bokkal jotaay bi di wax na rek yaraax moo fatta tey ji ñu xamuñu lan moo ko sabab nag xëy na ñu doon defar tali yi dañu doon fàtte defaraale la tali pour ñu gaaw a mën a ñëw <laughs> jaajëf ñaxtu bi yegg na foog naa ne kilifa yi dinañ ci bàyyi xel yi Fatimata Sall ginnaaw bi nu seetaanee reportage bu Kambel yow lan nga gën a jàpp ne parce que xam naa facteurs yi moom bari na ci li waral tas yi mais lan nga gën a jàpp ne daal moo tax euh, sëy yi daal du yàgg ni ko sa euh, natango avocat bu sax waxee en fait man li ma gën a jàpp mooy comme ni ma ko waxee xale yi ñooy tas boo demee tey couloir tribunal départemental te loolu ci ndakaaru kese la les mardi mardi yi ak jeudi yi dafay fees ba ñuul kukk te ay xale vraiment de couples jeunes la ñuy gis ñuy fase man dama ne xëy na facteurs yi bëri nañu peut-être que xëy na sociologue yi nañ ci war a gën a mën a jàngat mais ci suñu gis-gis c'est que Sénégal dañu nekk aujourd'hui une société en pleine mutation mooy maanaam comme kii euh, am na ku ko wax ci reportage bi danga naan jigéen bi boobu xëy na les rôles étaient bien partagés góor gi mooy dem indi jigéen toog ca kër ga donc góor gu ñëwee mooy def lii mooy def lii ku nekk xamoon nga daal fooy war a yem mais tey gis nañu jigéen ñi dañoo dañoo dem jàng école yi comme góor ñi dañuy xëy ci bureau yi ñu bokk ko comme comme ñim euh, boo amee loo boo liggéeyee tamit def ko sa njaboot xam nga ko foofu tamit boo waxee ne yow da ngay jël sa maam wala sa yaay ni mu doon comporté sa maam wala sa papa ni mu doon comporté woo ci biir kër gi mhm. ak euh, sa yaay wala sa maam nga bëgg ko def tey sa soxna dina xaw a doy waar parce que du doon benn mhm. donc góor ñi euh, c'est vrai que boo amee benn avantage socialement benn pouvoir pour nga euh, bàyyi ko yow góor dafay jafe mhm. boo ko buggee tamit teg yenn jigéen ñi jigéen bi yenn kii yi tamit du du du dox aussi yàq euh, Sénégal aussi société boo xam ne la dafa métti ci benn wàll sëy bi duñ ko bàyyee ñi ko séq famille yi surtout famille yu góor yi en général seen loxo dafa dugg trop trop trop ci biir sëy yi loolu tamit seet nañ ko et plus société bi di dem plus euh, métit boobu euh, di di gën a tegu ci kaw jigéen bi daal. loolu bokk na ci goro yi seen bopp léeg donte am na goro yi defar <laughs> waaye jàpp nga ni goro yi njëkk yi kenn du ñoom. très bien dinaa ñëwaat ak yow ci kanam tuuti euh, sëñ Ndiaye ci wàllu psychologie yow lan nga jàngat ci penc mi lan moo tax daal parce que quand même suy ñetti weer moom <laughs> kenn mosu gis la. jërëjëf El Hadj Assane donc li ñuy jëkk commencé mooy sëy nan lañ koy takke mhm. da nga gis ñaari nit yu tase fenn gisante rek. xeemamte rek ni dañuy sëy bokkuñu fu ñu juddoo bokkuñu fu ñu yaroo xëy na yenn saa sax duñu bokk diine xëy na sax duñu bokk aada mais cofeel boo xam ne ñoom gisante nañ ko seen biir tax nañu loolu yëpp ñu jënde ko seen mbëggeel ni dañuy dem sëy alors que sëy diggante ñaari nit la mm-hmm. waaye dépassé na ñaari nit ndax ku nekk yaa ngi indi li nga xam ne yow moom nga jële ci sa fami su fekkee nag ñaar ñooñu mënu leen fexe ba def maanaam ay réglage ay ajustement ba ku nekk nga xam ne li nga ñëw sëy bu bees bi mhm. day nekk lu bees du li nga jëlee sa kër papa wala sa kër yaay nga war a indi da ngay indi lu bees mu indi lu bees ngeen boole ko tabax lu bees li mhm. nga koy misaale mooy maanaam e, sa doom papa yow nga nekk papa kee nekk yaay mhm. ngeen jur doom doom bu juddu yéen a ko jur ci aqulaay taala waaye kenn du leen ci niru lu bees la ñii daañu gàtt ñii ñuul ñii xees ñii dër ñii duñu def te ñaari ñi leen jur benn la sëy noonu la mel maanaam ku nekk da ngay jëlee fenn ngeen indi jur lu bees mais nag jur lu bees boobu eh, dafa lu metti la nit koo xam ne bokk leen maanaam ni ngeen eh, di xalaate su ngeen eh, góorgóorluwul du ngeen dem soo xëccee mu xëcc mu dagg. maintenant buñ ko buñ ko euh, wéeree ci sunu cosaan ak aada daa wax ni waajur yi daan ci jàpp dëkkandoo yi jàpp ci donc. Euh, troisième voie boo xam ni moom mooy euh, léeg di indi nag. saafara li nit ñi di fàtte di wax. bu njëkk ba sëy yi maanaam ci biir groupe bi nga nekk li ñu naan endogami fi nga jógee foofu ngay sëyee donc du am problème su problème amee ñi leen boole sëy ñooy téewaat sëy bi mhm. mais du fekkee sëy bi maanaam dépassé ngeen seen groupe naturel yi ngeen jóge te euh, aada yi bokkul cosaan yi bokkul diine yi bokkul foofu nag day am problème nag réglage bi ñu ndax kii su jàppee ni man sama valeur moo gën a baax valeur kii daf ma war a topp kenn man tamit loolu mhm. loolu mooy indi li nga xam ni loolu moom mooy indi tanante am maanaam il faut tanante am euh, tanante maanaam li gën a tanante mooy une volonté mhm. de vivre de vouloir dépasser les situation et du yomb. Mhm. et li kii di wax naan trois <laughs> trois mois. Mhm. six mois un an. Mhm. maanaam euh, lan la étude yi wane sëy yu bare première crise bi ñu ngi am ci at bu njëkk bi. su sëy bi paasee at bu njëkk bi ñetti at yi la ñuy xaar su ñetti at yi paasee juróomi at yi su juróomi at yi paasee fukki at sëy bu paasee nag fukki at. am nga chance wu dund ak génn nga zone de turbulence génn nga zone de turbulence <laughs> mais nag soo seetee benn at bi mhm. fa la genn wàllu say yëpp di tase lu koy faral di waral genn wàllu yëpp eh, soo seetee eh, yi ñuy indi ci maanaam gëstu yi nee nañu ku góor ki mënul téye boppam wala ku góor ku jigéen ki mhm. da day dugg ci mariage bi ak benn rêve mu dugg ba ci biir gis ni waa ji nga xam ne moo ko doon seet si mhm. ak di ko woon yenn jikko yi maanaam labat bi dafay neex loo wax ñu ni noonu nga yeewu suba gis beneen jikko mhm. léegi ñaara ci nekk nga ni ah ma toog muñ wala déet pexe am na fi mhm. léegi la plupart nag ndax pexe am na moo tax ñu bëri dañuy seetu pexe beneen boobu mais jikko yi mhm. loolu bu jëkk ba daawoo am pexe léegi nag pexe moo am pexe bi mooy mhm. li ñu naan ba feneen amee ba léegi kenn sonn kenn sonn très bien euh, sëñ Ndiaye euh, maître Alaaji Diouf sànq euh, ñu ngi doon waxtaan ci couloir yi ak sama gan yi yenn yi jotoon ne seetlu gi mooy jigéen ñu bari ñooy dem tribunal di di ñaani tas yow en tant que avocat loolu ngay wax lan nga fa remarqué au niveau du tribunal gisuma loolu mhm. gis naa ne jigéen dina ñaan tas mhm. góor it dina ñaan tas mhm. ñaar yëpp am na mais bu ci nekk mhm. dafa am lu ko waral ni li yëngu li ko yëngal ko ëpp doole euh, defe naa suma xarit suma jabar suma consoeur parce que ma tax na ko léegi nee na ci xale yi la gën a bëri ay tas mais fan yi man ay màgget yu vrai yu ay quatre-vingts ans mhm. sëy ay cinquante ans ñooy divorcé muy cas yu yu garaaw nag mënoon nañoo eggale rek man damay wax ba sonn pour jubale ñu ne ma non non non <laughs> muy lu tiis mhm. doom yi màgg mhm. bay bëgg a màgget ci lan moo koy faral ci loolu cause yi principale ci yooyu magg gi cas yëpp góor ñi ñooy demandé divorce te man en général c'est le contraire xam nga jigéen ba bu góor bu commencé màgget. fekk ndaw euh, jigéen bi màggetagul sax mën na am léeg-léeg. ñu naan ko góor ki amatul kàttan dafa retraité amatul alal. donc damay dem. fekkee ne yow amuloo kóllëre. amoo looy seet. bu dee yow alal moo la tax a sëy. ah wala puqare da naan sa jëkkër may ma sama baat ma dem. Mm-hmm. loolu nag moom. Mm-hmm. mooy ñàkk. reconnaissance ñàkk warma. contraire dam day am da ngay takk xale mu jural la njaboot màgget nga dem di topp ci gune ndaw yi ci mbedd bi góor ñi. voilà bëri na ci. am na si cas contraire bi am na góor ñuy takk jigéen ba mu yàgg comme kaa yi ma lay wax. am ay presque juróom-ñett fukki at. dem ba yàgg nii ndaw si màgget na bu daa yow màgget nga de mais fàtte nga ne yow màgget nga. mais sa xel xale bu ndaw bu weex bu xees bu jekk moo ci nekk mm-hmm. ne da ngay dàq màgget bi dàq ay doomam dem tak xale bu ndaw di xale xale lut yow mooy loolu cor sec duna wey naan ñu naan la nijaay ngay melestiku alors du fekkee yow <laughs> yow bokkatoo sax mais pour yow xale bu ndaw nga uh-huh. léegi nag xale yi ndaw ngay wut mooy naa bàyyi dañuy màggataale yenn xale yi lu xale wutoon di ko màggataale muy di la seppil ay béjjaaw mhm. mooy ma ngi ñàkk fayda yi mhm. donc en kaa yëpp laa gis gis naa sax vraiment temps yi sama dëgg laay wax kaa mhm. yi ma yore yëpp yi ma gis yëpp góor yi ñooy demandé divorce et puis duñ ko wékk fenn tooñ rek la ñuy def ñoom ci kanamu yoon il sont obligés ñu wax li ko waral wala ils sont pas obligés lenn li ñenn ñi comme ni ko Faatumata waxee léegi seen yaay mm-hmm. seen sœur yi njëkke yi ñoo ne dañu may jàmb te ñu am faibles ba seen waa kër di leen wax nu ñu war a yoree seen jabar wala bu jënalee seen jabar dara sax seen sœur wala seen yaay di kaas ba duñ mën a defal dara seen jabar mm-hmm. benn bi gis naa ko fan yi waa ji daal dafa ni jabar ji na dem këram papaam toog fa ay weer noppaliku ba mu xalaat boppam parce que daal bëggatul ndaw si xëy na xelam jël si waat ci moom ndaw si ñëwaat ma ne waaye kii yabaate la xam nga kaay mel noonu li ci ëpp yëpp xam nga lu tax dañu teg sanction yu metti parce que aussi jël jigéen ci ndawam yore ko ba mu dem ba xam nga jigéen taaram day jeex nga utiliser ko ba mu neex la nga da wuti beneen jigéen bu gën a teel a rafet wala gën a nekk xale ni ko da dem passé naa la vraiment aussi non seulement du ngor mais l'islam sax dàq dàq na loolu xam naa oustaz dina ci wax. Ah, ah. ndax l'islam lépp lu ànd ak ngor ak jikko ju rafet. Mhm. l'islam àndu ci parce que loolu trahison. Ah, euh, nit ki mais man dama taxoo ndaw si ni waa ji waa ji ah xaw naa am bi am na juróom-benn fukki at ak nangam ba retraité na moom it mu ne ko sunu doom yi kuy nekk am na fanweeri at jëm ñeent fukki at. waaw ñuy tas pour lan. juge bi wax na bay bëgg a jooy man wax naa bay bëgg a jooy. waaye ji na ma ne man bëggatuma sëy bi moom am na juróom-ñetti fukki at <laughs> ndaw si moom kenn la ma sa am ci jëkkër ba mu nekkee jeune fille la ko takk mun rafet ba bëgg de mu takk ko ba ñu sëy ñoom juróom fukki presque léegi nee na ko man daal damaa bëgg dëkk man kenn. waaw bu ko tu mën a gis abal ba sama kër <laughs> yaa ngi wax sànq wàllu sanction maître daf may fàttali xalaat bu fi soxna Fatou Sow Sarr fësal fànni ci ginnaaw wàllu ndàmpaay je pense la waxoon ni sax ay xaw ma taxe xaw ma ndàmpaay nu mu ko tuddee tuuti waaw man dama bëggoon vraiment ku dem ba jël risque trahison rek tax laa jóg pour fase jabar joo xam defu dara ndax yow am nga xaalis te ndaw si amoon xaalis mhm. yow bu leen nga takk junniy jabar mais xam nga ne boo fasee dañ lay teg ay juróomi téeméer juróom 500000 francs mm-hmm. wala ay 1 million wala 2 millions. téeméeri junni. wala kër gi nga ne ndaw si na génn kër gi. Mm-hmm. parce que cas ma lay wax ndaw si ak góor gi moom ne li liggéey yëpp bi waa ji jëlee prêt pour tabax kër gi chaque mois bu weer dee mu ne ko ah xam nga damay fay kër gi damay jënd ceeb. Mm-hmm. jënd diwlin fay mbindaan Eh, dépense sa bopp comme da ngay liggéey bàyyi ma man ma fay kër gi mhm. xam nga kër gi turu ku góor ki la ci nekk mhm. léegi góor gi dafa taxaw ni tribunal na génn sama kër mhm. a ma dafa ñëw ne ma maa ngi dem di fay maa ngi fay gi en charge yow ndaw si ndaw si li mu liggéey yëpp mu verse ko ci kër gi booba waa ji mu ngi fay kër gi léegi nee na ko maa ngi sama kër ndax sama tur a ki nekk mais moo tax ma ni lu mel noonu yow dafa war a tëgg benn benn sanction ay ay ay vingt million trente millions ñu tëgg ko góor gi. Mhm. France doon la réew tubaab yi. Mhm. doo de léeg-léeg sa jugee li nga am yëpp gisoo artistes yu mag yi bu ñuy divorcé foofu mhm. ay milliards la ñuy fay. ay milliards dañ koy teg li nga fay ko. <laughs> très bien euh, maître Sall ànd nga ci sanctions yi ci daan yi. <laughs> waaw en fait évidemment parce que xam nga tamit euh, sëy ay ati at comme ni mu ko waxee des fois da ngay gis ay cas dramatique pathétique mhm. koo xam ne seen fanweeri at wala vingt ans wala dix ans nga nekk ci kër xëy xëy góor bëggatu la mhm. dina dina xëy na dina am ndax nit mën na bëgg yàlla dina ko def nga euh, doo bëggati ah. mais nga xëy un jour nga war a fase yow sa àddina bi yëpp yaa ngi fa toogoon ñu xëy tamit ne yaa génn kër gi parce que suñu loi yi amul benn protection ci loolu surtout ci ménage ak ni ngeen di dundee ak ni ngeen di wéyee ci biir euh, ci biir sëy bi mhm. at fanweeri at xëy na mënuñu xayma li fa def euh, góor gi moom moom kër gi yow yaa ngi fa toog nga xëy benn fan ñu génn la yow ak locataire ba xëy na locataire ba yéen a yem xëy na ñu jël say bagage ñëw am na ñoo xam ne dañuy ñëw taxaw tribunal et cas yu métti métti lay doon te juge ba mënu ca dara. Mm-hmm. parce que sa kër la amoon nga fa fanweeri at ak ñaar téeméeri at mm-hmm. juróom téeméeri at benn la. Mm-hmm. et gis nañu ko aussi suñu juge yi amuñu culture boobu culture que nit ki xëy na fase bi ni mu ko defee il a tort ñu jël ci sanction yu bari man yi ma gis ay 500000 1 million de dommages intérêts après 15 ans de mariage kooku xool fu mu dëkki war a uttiwaat euh, du ñu xayma yow investissement physique ak moral bi nga def ci biir sëy ba doom yi xëy na moom bu xëyoon liggéey yaa ngi ci doom yi yaa ngi ca kër ga yaa ngi togg xëy na bu mu nee yegg benn niveau bi sax yow am na foo féete ci biir sëy bi ba moom mu mun fa egg njaboot ga mun fa egg mm-hmm. mais loolu ñun ñi duñ ko gis mm-hmm. maanaam daal même suñu culture boo xoolee fase loolu depuis longtemps duñ ko wax tey fase jigéen daf fi yomb parce que même avant code de la famille bi boobu da ngay xëy te am na ba léegi ah dangay ngay xëy ne fase naa la mais naa la sabaat mm-hmm. mais ci islam dafa yo dafa dafa normal <laughs> dafa dafa daggan mm-hmm. donc loolu yomb-yomb googu mm-hmm. ci nit ñi góor ni mu mun a waccee jigéen dañ ko war nañ ko aussi seetaat saytuwaat bu baax moo Oustaz Mor Thiam Euh, dinaay faral di dégg yéen ñi jàng ngeen di wax ni yàlla li mu daganal yëpp fase la ca gën a bon xaw booban terme la utiliser moom la ca gën a détesté bañ bañ par exemple euh, lan ngay wax yow ci wàllu li nga gis ne moo waral tas yu bari yi waaw jërëjëf El Hadj seen di nuyu bu baax suñu bokk yi ñu bokk plateau bi di rafetlu tey ji mooy émission bi tey ji mm-hmm. mooy li ci penc mi vraiment tey mooy li ci penc mi vraiment Euh, man su ma fit dafa rëcc keroog bi ma bi ma liire observateur mu def ci ni euh, ci li ñu jot a xayma deux cent quatre-vingt-douze cas divorce ci mooy yooyu mooy yi tribunal constaté mhm. mais ma xool ci suuf ma gis mu def violence def ci soixante quinze pour soixante quinze personnes yoo xam ne dañ leen di brutaliser ak yeneen jigéen yi ñuy siif après man Euh, en tant que jullit en tant que prêcheur li ma jëkk a question mooy est-ce que suñuy message mu ngi jàll wala jàllul. Mm-hmm. maanaam dama remettre sama bopp en cause. Mm-hmm. parce que bu fekk continuer bi message yi mi ngi jàll yu mel noonu du am. après aussi automatiquement ma bind suma benn xarit bu nekk Arabie Saoudite ma bind ko ne ko tey ji ñun suñuy da tey bi lii la génnee mi yéen lan ngeen am ci cas bi moom mu ne ma ñoom ñu ngi ci 33 personnes par jour. 33 cas de divorce. cas de divorce par jour foofu ci Arabie Saoudite ci Arabie alors ma xam ne kon indi bi moo ko source comme on dit. Mhm. mais loolu du du du du du tax ñu mën ci jàpp. war nañ ko mën a pencoo comme ni indi ko ci penc mi pour waxtaane ko xool cause yi. Mhm. ak lan moo koy saafara. Mhm. Euh, Ayasan cause yi dafa bare bare baree bari. Euh, sama mbokk bi Ndiaye je pense tudd na ci benn affaire. mooy dañuy sëy te ñi war a sëy ànduñu ñi war a sëy ñoo àndul euh, sëy bu njëkk dañ doon wax dëkk bu yàgg wala koo xam jikkoom euh, kenn wax na ko ci biir reportage bi léegi def naa oustaz Bamba Ndiaye la mm-hmm. mu tudd baatu arab bi mu tudd alkafa lu ñu tudd nawlante nawlante ci sunu réew dañ koy delloo ci ni Mor Thiam tëgg la Euh, mbokk bi du tëgg kon morcaam du nawle mbokk bi fekk or nawlonte bi du loolu nawlonte mooy koo naw jikkoom naw jëfam naw jëflanteem naw naw nekki naw naw xelam naw xalaatam moo tax bi ko yonent bi dee résumé dafa ni ku am ñaari critère su ñëwee fat ko koo xamante ni am na foi bu set wecc bu ñëwee fat ko koo xamante ni am na jukko bu rafet bu ñëwee fat ko may ko jabar alors li tax mu tànn ku am foi bu dëgër parce que nit am na lu muy wax lu mu bëgg a jàpp. boo ko indilee ngëm rek day ñëw fekk si la ci loolu. maître wax na ko léegi da ngay gis koo xamante ni kii du am benn lay bu muy teg bëgg naa wàcc sama jabar bëgg naa wàcc sama jabar alors na génn na dem non kooku boo ko tegeree ay barem yu islam te fekk am na ngëm dana retourner bu dee jikko de part et d'autre également parce que du góor ñi rek am na jigéen ñi tamit bëgg a xëy wàcc seen borom kër parce que gis nañ leneen. parce que xam nga <laughs> ci côté jigéen ñi dama ñi dafa am benn côté mooy dafa am ñoom dañuy sëy sëyu essayé. Mm-hmm. yàgg nañ ci kër gi amuñu borom kër léegi ñu ngi sauvegarder seen ndaw. léegi il faut ñu am benn jëkkër ba leen takk leen di ñëpp dégg na takk nañ leen pour que ñu mën a libre pour mën a dem defi lu leen neex loolu dafay am parce que ñun tamit dafa am yu ñuy soufflé ci suuf mhm. donc cause yi nga xamante ni bi mhm. moom mooy xew ci biir sëy yi dafa bari bari bari bari ah. ba nga xam ne moo tax xale yu ndaw yi ñooy ëpp ci tribunal bi di ñaan divorce mhm. parce que léegi li ñu doon sauvegarder mooy virginité ba sauvegarder nañ ko ah. léegi moo tax léegi dañuy bëgg di libre très bien Maître Sall mu ngi junj sànq wàllu yombaay gi ñu seetlu ci ñi nga xam ne dañu yomb gaaw a fase l'islam dafa yombal fase ci góor daay xaaj ah, euh, euh, euh, Assane dama lay wax ne ni takk yombe noonu la fase jafe takk ni mu yombe xam nga lislaam dafa yombal takk pour que caay-caay du am moo tax mu yombal takk diggante fi ni fiy waxante nii léegi mën nañ fay takk jabar doog a régler yeneen yu bare bëri mais diggante bi ñuy waxee nii ñu fay fase sëy parce que li ci aju moo tax euh, ci suñu aada ñun suñu aada ñun da gis ku ñëw di nuyoo si ne dama bëgg sa doom ñu ne ko demal nuyu ji tontom El Hadj Diouf mi ngi dëkk Thiès. Hmm. mu taal oto dem Thiès. mu demal nuyu ji tontom Ndiaye mi ngi dëkk Ndar mu taal otom dem Ndar non loolu du du pour mu nuyu tonton yi kese kese maa bëgg seen doom. Ah. mais du ñu bëgg parce que sëy du neex. trois mois trois ans 5 dix ans métti métti boobu. li nga nar a def. il faut nga dem seeti tonton Ndiaye wala nga tonton tonton El Hadj pour ñoom ñu dimbale la ci parce que ñoo la ci ëpp expérience loolu moo doon indi nuyoo nuyoo yooyu. pour balaa say bee tas. fekk ne jaar nga ci processus bu gudd a gudd. très bien maintenant Habib Ndiaye li li cat li mooy sëy yi ak beru appartement yi euh, génn njaboot gi cellule familiale yi léegi demeetu ni xëy na loolu ci la. waaw loolu ci la aussi pour wax aussi ñoom oustaz ñu xam ni sëy fi la ko lislaam fekk. Mm-hmm. maanaam aada sëy aada fase aada sang néew suul néew l'islam fi la ko fekk culture bu nekk ak ni nga koy defee mm-hmm. du ñuy am xaalis rek ay fase comme ni ko maître waxee wala pauvre rek ay fase amul maanaam liñ ñaan soo seetee euh, données yi ñaam nit ñi am xaalis di fase noonu la ñuy ñàkk xaalis di fase d'ailleurs fase mi ngi ëpp sax ci pauvre mm-hmm. loolu li koy waral li ñu ëpp nee nañu affaire maanaam koom bi mi ngi ci mais am na loo xam ni suñ société yi maanaam léegi ndaw yu ñoo ëpp mag ñi. Sénégal gis nga dernier recensement bu bees bi. Mhm. ñi am plus de euh, soixante ans motuñu trois pour cent. Mhm. soo dee ñi nga xam ni dix-sept ba quarante cinq ans ñuy majorité population. Mhm. mais ñooñu jigéen ñooñu foog ñu sëy góor ñooñu foog ñu am jabar donc. il faut que ñu seetante wutante takkante comme ni nga wax nii dañ ciy dugg ba pare essayer lan moo mën a accompagner sëy bi ndax sëy dafa am suivi suivi bi nag moo manqué mhm. xam nga bu njëkk ba lu tax mu yomboon ñëpp ñoo ngi ci kër gu mag gi góor gee fi nekk mooy joxe dépense même ko am dépense moom nga koy jox mooy séddale dépense mooy wax léegi li nga wax léegi ku nekk nga sa appartement mhm. daa ñu sëy ba fase mbedd mi sax duñ ko yëg ndax daañu nekk ku nekk daañu waxtaan seen biir ba tëral nan la ñu war a fase ba dem tribunal ba pare soog a koy ñëw di wax nii. loolu moo fi gën a bëri. parce que léegi nit ñi am nañu aussi possibilité pour loolu même su fekkee yow sa papa d'accord wala sa yaay da ngay dem tribunal tas say bi naan dox dox. góor rek jigéen a koy def donc yooyu dafa nekk ay réalités yoo xam ni kenn mënul adossé ni culture moo ko indi walla religion bi dafa nekk maanaam dëkk bi ni muy doxe ni muy amee transition démographique ni composition population bi change noonu la rapport di changé mhm. da ngay gis pays euh, tubaab yi ñoom sëyatuñ wala contrat. justement dama naan dama naan lan mooy avenir u sëy ci sunu penc yi. voilà ndax dinañ mën nañoo tiit dem ba bis nit ñi doon. non non noonu lay demee. inexorablement su fekkee réglé wuñu benn question. Mm-hmm. mooy ñu réglé famille yi. yi nga xam ne ñoo war encadrer sëy yi. Uh-huh. ba pare régler maanaam ñi war a sëy lan la ñuy yore. soo seetee am na dëkk yu mel ne ay Iran ak yooyu ñoom dañuy encadrer xale yi soo xasee ba nekk adolescent su ngeen bëggee sax ay commencé di def flirter ñoom dañu am sax ay mariage temporaire pour ñoom niñ ko gëmee. Uh-huh. comme ça gars yi suñ ci nekkee suñu demee ba affaire bi bëggatuñu ñu teel a dem. Uh-huh. par contre plus ñuy dem plus jeunes yi di di di am indépendance économique jigéen ñi ak góor ñeeg yooyu dañuy dem ba. pouvoir bi nga xam ne moom la famille yi waajur yi amoon dootuñu ko am maintenant donc pour régler problème bi foog ñu delloo si ko ci famille mhm. il faut que famille yi ni ñu daan yeddee mhm. ku góor ki ñu am accès ci ñoom di ko yedd ni daan yedde ku jigéen ñi ñu am accès ci moom di ko yedd beneen li nga xam ne aussi moo am tubaab bi ñoom nu ko remplacer mhm. man psychologue la léegi tubaab bi ñoom psychologue la ñu am amatuñu papa amuñu yaay amuñu bàjjan mais psychologue la ñu am chaque mois ñu dem wala chaque deux mois chaque trois ñu dem <laughs> ñun ni ko oustaz waxe da nga daan toog ba weer wi dee ba weer wi sa yaay xool la wala sa bàjjan xool la xool sa kanam ni la demal nga nuyu ji sa bàjjan diw mm. soo demee mu wéet ak yow ni la waaw naka moor baa mi ngi góorgóorlu mm. nangam nangam yi nga xam ne soo ñoo ko wax fenn mm. nga wax ko ko mu am lu mu la wax soo demee nga dellu ci changé ku góor ki noonu danga daan dem ñëw seet sa nijaay mu laaj la yow alors foo toll ci sa ay mbir nga wax ko mu yedd na nga dem waaye léegi ana man ana yow. Hmm. fu mu yem neex. ok ñàkk kilifa gi daal xëy na aussi léeg-léeg moo indi jafe-jafe. dañuy dem ba Matam dinaa ñëwaat ci plateau bi ci kanam ndax Ali Bandel nañu liggéeyu Matam Matam ko tuddee xel yi dem ci wàllu immigration dafa am nag yenn sëy yoo xamante daal loolee bokk na ci li koy nësaxal ak it nee nañu tribunal régional bu bees ba fa tribunal amee ba léegi daal jigéen ñi lu la ñu xor njaay ko naaja jox dépense sax mu wutali tribunal Ali Bandel diwaanu Matam bokk na ci gox yi nga xamante ni li fi jigéen di fasekat bëri na ci misaal ci tribunal régional bi ci Matam daanaka téeméeri affaire civile ya fa ne ñeent fukk yi ak juróom-benn mu ngi lalu ci wàllu tasum sëy. de faire euh, utiliser tous les moyens possibles pour concilier les deux les époux loolu la ñuy def ba nga xamante ne souvent dañ ciy am ay ay résultats parce que voilà euh, c'est vrai que c'est pas facile parce que souvent sëy bi day day nekk euh, problème bu yàgg lay doon ba nga xamante ne bu ñëwee ba fii rek dañuy naan presque les carottes sont cuites quoi d'habitude noonu la ñuy wax waaw mais ñun malgré tout dañuy def tout pour euh, véritablement aboutir à un consentement pas un bon aboutir à une conciliation ñu nekkaat ci jàmm bari na ay cas yoo nga xamante ne am nañ ko fi alhamdulilah. waa terewul ne am na ay divorce moom divorce yi nga xamante ne ñu indi nañ ñu ko ak ñi nga xamante ne andiluñ ñu ko. waaw mais yi nga xamante ne moo ñëw tribunal am na am na ay cas ay cas de divorce bokk na ci li ko waral ci gis-gisu ñenn ñi anam bi nga xamante ni góor ñi ak jigéen ñi dañ koy daje laata ñuy yàkkamti ngir sëy seen biir lu ci gën a bëri bu mbir mi yàggee rek ànd bi daal di taq suuf. nga dugg lu ci ëpp dañuy dugg ci ay sëy te duñu ci dugg ak mbëggeel ndaxte su fekkee ne nit ki même bëgguma ko bu baax. te yor na damay xalaat ne war naa sëy ak moom su fekkee nag loolu mbëggeel lalu ko loolu mooy waral sëy yu ci bëri léeg-léeg dañuy soox soox ba mu yàgg ci tas rek lañuy gis koo xamante ne dafa am jëkkër jëkkëram tukki am fa fukki at fukki at ak ñaar fukki at ak ñett juróom-ñetti at loolu du ñépp a ko mën a muñ parfois aussi loolu tamit dina tax sëy yu bëri di tas ci loolu problème bi nga xam ne bu tar la fii si Matam parce que jigéen ñu bëri dañuy euh, jànkonteel mbir yu mel noonu te dañuy ñëw seet si ñu seet si rado li si gën a bëri day fekk ni ay jigéen yi nga xam ne seen jëkkër dañu tukki def fa ay ati at te du ñëw si li ñuy wax si droit abandon euh, conjugal la sax parce que déjà loi loolu da ko da koo daax euh, même su fekkee mi ngi dundal njabootam dafa mel ni da leen a te loolu euh, nit ñi xamuñu ko tey suñu demee tribunal pour bëgg euh, ñu tas sëy boobu dañ leen di naan amuleen certificat de mariage foog ñu def jugement donc dañuy accompagner femmes yooyu des fois li ñuy may chance moo di le procureur ak les juges là sont compréhensifs par rapport ak situation yooyu ñu jël ay mesures d'exception. bëri ay ay ay jëkkëru immigré la ñuy am. souvent dañuy toog ay ay ay ay at duñu ñëw léegi ku jigéen ki dafay nekk dootul bëgg dara ci sëy bi parents yi aussi du ñuy bëgg a jël seen responsabilité par rapport à sa donc euh, le dernier recours mooy mooy tribunal léegi bu ñu ñëwee tribunal nag ñun liñ ci li nga xamante ne moo ñu ci war dañ koy def topp procédure bi bu ñu amee chance euh, am certificat de mariage day nekk lu yomb ci ñoom mais des fois bu ñu amulee certificat de mariage day poser problème. ce tribunal ba donte li mu sëyiñ fi tas bëri na waaye instance yi itam kenn demul ñu des. Ali Bandel ñaa ñu koy gërëm di ko sant bu baax moom Ali Bandel del si ci euh, waxtaan wi maître ak sàll ak Diouf am na ñu ne wàllu it également li waral sëy di tas bokk na ca niñ ciy duggee. léeg-léeg benn waay gëm loolu loo xamante ni ki koy gëm loo aussi mooy parce que ki gëm yi nax rek la ñuy nax euh, ñëw otoom da ko àbb yëre da ko leb waaw nga dem ñetti weer waaja yorul tus nga daal di ciy waaw euh, xam nga Ibra l'italien amoon na fi <laughs> Ibra ñëw waa ji bu dee Italie la nekkoon Modou bu fekk du dara masul génn sax Sénégal masul sax toog ci avion ah. donc aussi loolu baax na sax ci ñi loolu dal ndax aussi bu dee kooku dafa ñëw rek ne la man maa ngoon Italie am naa lii am na laa rek nga ne bon d'accord damay sëy mais sëy boobu mbëggeel lalu ko day foo ne immédiatement oto yaa ngi ñëw ndax Modou Modou la dina tabax kër yooyu sëyu intérêt la sëyu intérêt nag intérêt bi ci séentu bu amul ah déception mooy am donc sëy bi daal di tas ci tàng tàng kooku moom amul ay lu ñuy seet mu ñaare boor yëpp góor ñi aussi mën a takk jigéen ci intérêt lañ ca séentu woon dem ba ci biir ah, ndaw si am na femme yoo xam ne bu ñuy liggéey dañaan seen jëkkër ah man xorom sax du ma ko jënd yaay ji def lépp ci kër gi hmm. góor gi ma dem ci biir moom mu découragé mais ndaw si man ma foogoo damay takk am ku am liggéey. nekk ma li muy liggéey pour boppam la. donc bu ci nekk intérêt la mais bu fekkee yàlla moo tax ngeen sëy ngeen bëggante ah, ay intérêt yu ngeen jiital. ndax nobel mbëggeel cofeel moo ko lal mooy base bi. Euh, da ngeen da ngeen yërmante da ngeen ngeen am ñoo solidarité léeg-léeg ji mën a ñàkk. jabar ji sa liggéey ñëw indi jabar ji mën na am problème jëkkër ji wane solidarité dafa war am solidarité d'abord ci couple mhm. solidarité mooy base bi nga xam ni couple bu ko ñàkkee day tas la solidarité mhm. ndax bu kenn ci couple bi centré ni keneen ki yërëmu ko wala jàppalewu ko mhm. wala faalewu ko day daal commencé indi crise la crise s'installe maintenant damay wax ci li oustaz wax ci l'islam ni sëy ni mu jafee tas takk li ko takk tasu ko ki droit commun aussi noonu la. xam nga fi mu nekk nii fii mën nañ fi def sëy boo xam ne yoon nangu na ko ci kër yi ci mosquée yi après mën nañ ko constater par l'officier d'état civil mais yoon nangu na boobu mariage. Mhm. mais yoon nanguwul imaamu Sénégal yëpp xalif généraux yëpp daje ñëpp daje ñu ne sëy bi tas na yoo nee na tas suñ ko il faut tribunal rek même sëy boobu ju takk te amul kayit te amul mairie. pour tas ko il faut nga dem tribunal donc dañuy wut jugement de mariage boo bëggee tas soo ko wut jugement de divorce. pour dire que gis nga li ko takk tas ko. Ah. même ci droit commun dañu jafeel dañu jafeel tas. pour dire que tas dafa dafa diis dafa tiis. maintenant tribunal maître est-ce que ñu ngi koy tas dans les règles de l'art parce que nag. Euh, ni ñu ko ah. waxee tas war nga ko xool xoolaat am na sax ñu tooñ léeg sa mbokk avocat yi ne léeg ñu dégg ay ay anecdote tas sa yu jàmbur jaari ci ginnaaw wiiri takk soxna sax <laughs> waaw loolu sax euh, léeg mu am mais ay benn cas lay nekk ñaar ci lu mat juróomi téeméeri avocat waaw médecin ne ma yoon terewu ko waaye yoon terewu ko ti aussi ah xam nga ki lay jege mhm. nga di ko défendre mhm. mën nga dem ba ci biir nga gis ay qualité ci moom mhm. ñu baax kii jëkkëram lu tax téyewu ko woon pourtant ndaw si ku baax la mhm. kii de war naa am yaakaar ci moom te ma koo takk du du avocat yëpp de mais man gis naa cas yu mel noonu ñoo mhm. xam ne dañu dem ba ah jege seen avocat mu takk leen mhm. comme yoon ayew ko ah diggante gisante nañ bëggante nañ sëy nañ mais aussi moral mun na ko dàq parce que aussi rafetul nga tas sëyu jàmbur ba pare dem takk jabaram. da nga naan dal xel weesuwul loolu. parce que xaw ma avocat di ca màgget ci rob waaye dina la ko def bis. loolu loolu lu ñaaw la bien que yoon ayewu ko du lu yoon ayewul rek dañ koy def loolu yoon maye na ko mais moral xam nga moral ak droit du benn. Mhm. mais bu dee école morale li nga xam ni ah bon sens ak ak nekki ni jamono nanguwu ko doo ko def mhm. mais. yaa ngi naan ni ñuy tasee sëy yi foofu. Mhm. ndax day jaar yoon. mais xam nga fi nekk nii léeg nga gis benn àtte boo xam ne lay woon jaarul yoon. Mhm. tas sëy bi léegi rek loo wax mais da ngay xas magistrat yi. Mhm. mais magistrat yi suñuy xarit lañu ñoo bokk liggéey bi jàmm lañ séq. mais léeg ñu àtte àtte yoo xam ne vraiment. da naan lii nan la mën a amee. Hmm. ay nit rek ngeen aussi bii ay nit dañuy jub. ay nit rek ngeen aussi moo tax bu ñu nee ñenn ñi. je comprends ñenn ñi nga xam ne ñoom xamuñu lu justice. dañoo hmm. foog ne magistrat yàlla la kenn waru ko laal kenn lu mu def rek noonu la. parce que ñooñu nag yàlla rek ci suuf. Hmm. yàlla rek moo am droit. déedéet gëwuma loolu. yàlla xam nga yàlla. non ñoom non <laughs> yàlla moo naan nit tey ma teg la lii te doo ci mën dara. magistrat yi dañoo tey mën dana tëj te doo ci mën dara. xam nga doole jooju day tax ju bëri dañuy ragal nag ba du ñu wax dëgg. mais loolu amul importance ñoom ñu xam ne ñun ñoo bokk liggéey bi ñoo amante des respect réciproque mais li ci am solo mooy ñoom seen biir léeg-léeg wax dëgg yàlla ñu atte ay atte musiba naaru laay yoo xam ni. doo xam nan lañ ko attee. nan lañ atte ate boo xam ne mën na waa ji na sa xaru ji. maintenant ay erreur de bonne foi lay doon wala. ah yàlla rek xam. Mm, très bien war war war ah. Oustaz sa Gueye <laughs> parce que yenn yi nag. voilà naan mm. dañu war a ñaan attekat yi. Mm. yàlla. suturaal leen. ba awale leen ci yoonu siraatal mustaqima mhm. ndax safaan ba safara la ñuy dem directement. kon atte dafa diis. moo tax bu ma gisee koy atte dama koy yërëm dama koy ñaanal. Mhm. ndax yàlla def lu neex yàlla. Mhm. yàlla def lu jub. yàlla mu def lu ko neex rek ak pour toroxal nit. moo tax yàlla nañu yàlla yàlla yàlla xiir. ñu atte atte bu rafet. jéem li ñu mën seen kéemtalaay kattan. pour gën a jege li yoon bëgg. Mhm. ndax safara. amiin mucc ci. jërëjëf maître maître Fatimata Sall ci wàllu ci wàllu rek euh, société bi euh, intérêt yi ñu doon wax c'est yu matérialiste seen loo xam ne xëy na après mu mu mujj doon am mirage ci yow euh, est-ce que yow loolu jàpp nga ni dafa am jigéen yu dugg ci ndëgg sërëx piège bu ni mel. en fait yow dégg naa la boobu ba tey jigéen ñi ngay sànni xeer. <laughs> du jigéen kese en fait say ñaar ko. seq maa ngi xas seen càmm ñi nga xam ni amuñu benn njariñ lee léeg ñoom it di <laughs> exploiter jigéen kon pour digg que de part et d' autre euh, fu ne mbaax nga fa waaye. fu ne sikka nga fa donc mënuñu man du ma jël yëpp rek teg ko ci góor ñi wala jël yëpp teg ko ci jigéen ñi. jigéen am nañu ci bon ah comme am na ku baax. góor ñi tamit am na ñu ci baax comme am na am na am na aussi ñu ci ñu ci bon. mais bon mënu ma wax ne que ne rek euh, c'est vrai que bu fekkee ne da dugg euh, ci sëy pour euh, des questions matérielles bu ko fa nekkul euh, euh, aussi bu bu fa nekkul di nga gaaw a tas mhm. mais aussi am na lenn aussi lu ñu war a seetlu suñu société sénégalaise aujourd'hui elle est devenue très très matérialiste mhm. plus ndóol gaa ngi fi plus ah. bëgg-bëgg yi bëre donc pauvreté bi dangay foog ni benn ci cause yi la ñàkk bi kii ut bi aussi mhm, parce que da nit ñi dañoo bëgg léegi dañoo bëggee bëgg alal c'est une société devenue très matérialiste ngay xool ci xew yi ni muy demee fi ngay war ne critère matériel la c'est vrai que boo fa fekkul dina gaaw mais aussi bon ci euh, li nga doon wax léegi ci tas sëy yi mm-hmm. Mm-hmm. tas sëy bi yombul man ci koy atte sax yenn saa dama leen di yërëm mm-hmm. parce que ñoo xam ne nekk koo xamoo leen mosoo leen gis fekkee fu ñuy sëyee fekkee fu ñu doon dundee sëy ba te léeg bu ñu ñëw tribunal xamoo leen euh, ñu sëy fanweeri at wala vingt ans wala quinze ans nekk seen kër te bu ñuy ñëw ku nekk wax nga am parce que xam nga booy sëy doo dajale ay preuve ay firnde pour suba ngay dem tribunal. Mm-hmm. donc ku nekk day wax wax wax wax teg wax teg amul la plupart du temps du question lebal naa la xam tey boo ma bu may lebal sama xaalis na am firnde. Uh-huh. waaye boo may dóor xam nga du am firnde bon te biir dóor yi doo uti certificat médical di denc ndax ëllëg. Mm-hmm. donc ay wax lay doon ku nekk day ñëw wax wax wax wax bon ça dépend peut-être que magistrat bi aussi kan la ci gën a xaw déggal wala xëy euh, moo ko gën a convaincre nga ñëw jéem fa atte atte boobu day jafe man mii mm-hmm. tey ku ma waxoon naa day metti parce que fekkewuma yëguma. xaw ma ci ay wax ay àtte. mais yooyu mais pour am preuve bi c'est pas c'est pas évident parce que même boo gisee code de la famille. Mm-hmm. dafa citer dix cas cause de divorce. Mm-hmm. ci ci cas il faut mu am lii il faut mu tel ndax da la doon dóor wala mu la doon saaga gaañ la ndax daf la abandonné entretenir la wala abandonné domicile loolu mos mën nañ ko constater rapidement. bu la gaañee tam certificat médical. mais donc c'est des faits yoo xam ne souvent c'est pas avéré souvent il y a pas preuve mhm. donc magistrat bi aussi pour mu àtte ci day jafe mais bon la loi a bu fekkee ne foofu nee na lu ñu àtte kontaanoo ci mun nga def appel ba mun nga dem ba ba cassation mhm. donc euh, loolu aussi dañ leen ci wax parce que cas yi ñuy recevoir par jour dafa bëre mhm. euh, ku nekk ñu ak waxam dafa bëre nit ki dinañu tappale toq toqal ñuy jooy bon donc <laughs> pour àtte foofu vraiment c'est c'est difficile du yomb xam naa dinaa après eh, sëñ Ndiaye lay doon xam naa sëñ Thiam dina leen ñun ba ngeen di takk ci ñun ngeen ñëwoon bu ngeen di tasi tribunal seen affaire la parce que buñ delluwaatoon ca jàkk yi ak ca mag ña xëy na mu mu am saafara eh, sëñ Ndiaye wàllu communication léeg-léeg nga gis kër yoo xamante ni wax dëgg yàlla pataaral gi ñàkkum communication euh, gis nga ñen yenn saa tu demande ñi nan lañ def ba sëy <laughs> saa su ne mbëkkante guddeeg bëccëg ñàkkum communication bi naka lañ def ba communication dellu siwaat Assane sëñ Assane wax nga problème bu gën a mag <laughs> li indi coow li yëpp ak divorce yi la plupart mooy ñàkk waxtaan ñàkk waxtaan bi mooy rëy moo koy indi mm-hmm. ku góor ki ni maay kilifa gi wala ku jigéen ki naan waaw man maay sa jabar danga ma war a jox sama gëdd léegi su ñu geddee ñu mer xam nga gis nañ kaa yoo xam ni ngi dañuy nekk ci néeg yi pendant cinq ans duñu sax bokk laal mais ñooy bokk néeg te kenn du leen xamal dara donc dangay dem ba problème am ñu soogay ñëw nga sa koy xam ni ndeke ñaar ñii waxtaanuñu te ñàkk waxtaan bi yëpp li ko indi mooy da ngay jël am loo xam ne da nga ko dugal sa bopp ni noonu la sa euh, sa sa sa partenaire mel loo foog mm-hmm. et maintenant beneen bi ci gën a métti mooy comme ñun fii dañ nekk société boo xam dafay am ay polygamie généralement ku góor ki moom dafay yomb ci moom su amee problème rek mu daw génn néeg bi dugg beneen néeg te ku jigéen ki du ko mën def ce qui fekk aussi day rendre difficile euh, maanaam retour de communication bi ci premier coup bi xam nga pour quoi parce que waa ji mi ngi seeti feneen bokkul ak fi nga xam ni comme suñu leen indee ci counseling yi wala nii nga xam ne yéen ñaar il faut que ngeen toog waxtaan pour mën a Euh, jubale loolu pour anticiper li nga doon wax oustaz. Mm-hmm. même suñuy tas euh, see ci jàkka yi. Mm-hmm. duñ ko mën a tas ci jàkka yi jàkka yi institution rek la. réglé kay lan bis bu nekk ma wax leen ko jàkka yi kay waxtaan ni leen du fekkoon ni. Mm-hmm. bokk diine mooy tax. Euh, sëy du tas ah. kon kuy nekk jullit doo tas wala ku nekk catholique doo tas ah. du fekkoon bokk waaso yi tax sëy du mm. tas ay wolof yi du ñu tas wala séeréer yi du ñu tas du fekkoon ni bokk dëkk mooy tax ngeen euh, sëy du tas loolu mm-hmm. sëy li ma la waxoon toujours li ci borom xam yi d'accord mooy il faut que ñaar il faut seen ay caractéristiques individuelles yéen ñaar ngeen am benn volonté benn désir d' être ensemble. loolu mooy fondement bi maanaam loolu mooy tax ngeen surmonter crise yi. Mhm. su ngeen xoolee xale yi ngeen xool xool effort yi ngeen def xool ci biti ñi leen di xool naan ah sëy bii du dem ngeen war cee jàpp fexe ba loolu di dem loolu mooy nekk moteur. Mhm. mais sëy boo gisoo si dafay am ay. maanaam lu koy suuxat lu koy ay ressort ay ressort yoo xam ne moo koy def waaye say ana moom ana alaaji Assane wàcc na teg yéen jox leen ma ma lekk tëdd na ci laal bi génn mais dafay mel na yow dëkkoo ci kër gi mosuñu la gis nga génn xale yi ànd ak ñoom mosuñu la gis nga ànd ak moom seen yaay wala suñu la gisee ngeen ànd ak seen yaay ci xew sax nga jiitu ko di pas seen yaay nekk ci ginnaaw <laughs> rus nga uh-huh. wane sax sa jabar rus nga sax wax sa jabar mhm. lu benn wax waxtu rafet ci ay waaw ay moodu ci kanamu nit ñi la soo waxee ñu ni non waa ci nooy xam nga aussi suñu suñu culture euh, sëñ yaay dafa am ay tabou yu ci ne maanaam kersa gi kersa gi tey jii boo ko defoon euh, bras dessus bras dessous euh, ñu wax ay moodu ni nga ko waxee ñu ne moo ñàkk kersa de non xam nga kooku ki la koy wax comme ni ma lay wax nii kooku lay tasal sa sëy du loo ko takkal uh-huh. kooku di la wax naan la yow fii mu nekk nii da ngaa nooy ak yooyu. Mhm. su la wanee ginnaaw bàyyi na la de xamul lu nekk sa néeg xamul lu nekk sa kër. Mhm. yow yi da ngay am fulaak fayda ku toll na. lépp loo xam ne yaa ngi koy def pour mu mhm. jubale sa kër. kanam sa couple kanam. nga def ko ci bu xool xam ne soo ko ñàkkee. sa bopp rek nga ko ñàkkal masa ah. rek nga cee dégg <laughs> dëgg la ah. jërëjëf euh, Lahabib Ndiaye euh, yow saas maa ngi doon wax ci affaire tas yi bu fekkoon ni doon nañ si ci fañ ko doon takkee di waxtaanaat xëy na mu doon dernier recours avant ñuy wutali nag tribunal waaw Hadj Assane loolu nga wax euh, sama classe yi nga xamante ne bii ñooy imam yi nekk ci jàkk yi euh, bari na luñ ci métti lu lool lool ci loolu parce que euh, ñun nekk imam yi sunu borom dafa am lu mu ñu may lu mu mayul attekat yi parce que dañoo jege population bi de trop. Mm-hmm. ñooy jullee ndoom ñoom suba ñooy jullee ñoom tisbaar ñooy nekk ak ñoom ci tudd yi ñooy nekk ñoom ci rob yi. Mhm. ñooy nekk ak ñoom même sax bu kër gi yëngoo ñu ñëw ci jëkk a jot avant leneen di ci jot. Mhm. Euh, am na luñ doon am benn pouvoir buñ doon am euh, sëy yi tas di dem tribunal du bari. Euh, te li ma wax nag lu ñu xam la parce que man euh, retiré na ay dossiers yu dem tribunal ma wax ñooñu dem leen ngeen retiré seen dossier ngeen ñoo ñu toog. ñu toog ma réglé waat sëy ba sëy yi ñu ngi sëy ñoom bu ñu wootee dinañ wax ne loolu oustaz Mor def na ko ba tàyyi. Mhm. jël naa sama oto dem déplacé wu dem réglé ñu nekk tribunal ñu ñëw parce que dañu am ay langage yu ñuy tenir ak ñoom yoo xamante ni bii xëy na tribunal du ko mën. Euh, ndax soxna si li mu wax am na ñoom lu luñ dul xam te ñun am nañu suñuy anecdote yoo xam ne euh, expérience bi mën nañu may loolu. Mhm. Euh, donte loolu lu am solo la moo tax bu buñ ci associé woon jàkka yi. wax ma jàkka yi ñuy tas sëy yi mhm. parce que jàkka warul nekk tasukaay yu sëy mhm. jàkka dafa war a nekk tabaxukaay yu sëy saafara loolu la. su ko defee buñ ci associé jàkka yi rek ak imam yi doon ci am na imam yu nekk tribunal xam nañ leen. mais buñ buñ doon jóg di fekk nit ñi fa ñu nekk loolu dana gën a yombal mbir mi bi ci des Hadj Assane euh, amul benn mariage li Seydina Omar waxoon amul benn mariage bu nga xamante ni bii kër gu continuer boo xamante ni bii cofeel la continuer mm-hmm. cofeel day tàmbali rek mais leneen moo fay nekk luy tax. kër gi mën a continuer lu bokk bokkul ak cofeel gi. Euh, dama ci nettal benn anecdote benn waaye dafa ñëw ci Seydina Omar di ko boole si ak jabaram bi mu ñëwee mi ngi fekk Seydina Omar mi ngi toog nii di jàpp. Euh, soxna si mi ngi ko tiim di ko wax bay jël baaraam bi di ko dóor ci kaala Seydina euh, Omar bi. Mm-hmm. waa ji ñëw yërndu bëgg a dellu Seydina Omar ne ko non kenn du yërndu du dellu duggal rek mu dugg Seydina Omar ne lu doon sa tànk. mu ne ko dama ñëwoon doon kalaame si sama jabar. <laughs> mais li ma fi fekk mu ëpp la nekk sama kër. mu wàññeeku waat wax na Seydina Omar ne ko. la ko Seydina Omar wax loolu moo am solo. Mm-hmm. mooy Seydina Omar daf ko wax ni ko kii li tax ma mën ko tollaleer lii. Mm-hmm. dafa am fu ma féete. moom moo ëmb samay doom. Mm-hmm. moo leen nàmpal. moo leen di boot mooy fóot sama yére. et moo may toggal. maanaam ci gàttal il faut il faut que ñuy muñalante ku ne di xool lenn. di am looy xool ngir ngir kenn. luy tax luy tax loolu mën yow Assane nga baal. ma dama bëggoon jël ki ne ci ligne bi ndax léeg-léeg gars yi dañuy jàmbat. Euh, ah. serveur rek ub ay. maa ngi ñëwaat ci euh, ñu jël ki ne ci ci téléphone bi sëñ bi ñu ngi lay nuyu wala soxna si. ah na nga def sëñ bi maa ngi maa lay fay. jërëjëf euh, nga baal ñu rek wax yaay kan ak li nga bëgg a dolli ci waxtaan wi. man maa ngi wootee bitim réew dama bëggoon participer ci émission bi. Mhm. Euh, ñu ngi leen di déglu seen xalaat rafet na trop. Mhm. vraiment réew mi ñun ñëpp xam nañ tey ci tànk yi nekk baaxul. Mhm. parce que jigéen ñi fu mu toll may nañ leen pouvoir ba xam ne góor ñi léegi da ngay gis sax góor boo xam ne dañ lay ne tàkkal jabar mu ne la ñemewuma. Mhm. su fekkente rek avocat yi classe maître yi juddoo foofu ñoom ñoo nekk tey di yore. Euh, chaque façon sëy sëy ci maanaam couple yi. Mhm. nga xam ne ne saa yu problème amee problème sëy amee ñoom ñoo koy atte tribunal régional lañ koy yóbbu ñu atte foofu sëy yi jigéen ñi bi ñu am duñ ko bàyyi bu ilaa yow mi diin parce que même ñun ñu nekk nii sëy yi ñuy tas bala ñuy tas il faut que yóbbu leen ci tribunal ba pare mag ñi toog da ngay gis sax boo taalee sa télévision nga xool da ngay ne ni séeréer dañuy ñëw dox maslaa ba pare ay semaine buñ ci mënul yu ñu soog a bàyyi affaire bi jàll tribunal régional mhm. mais fekkente ne léegi ustaas yi nga xam ne ustaas yi ak sëriñ si ak yooyu yëpp jéggal nañ leen jëlal nañ leen léegi avocat yi ñooy tas seen Sénégal kon Sénégal fa mu jëm baaxut sant yàlla mais ñu xamante dëgg rek ñun ñi ci réew ma lañ ne. Mhm. sëy ci biir kër yi am na ñu jigéen ñi la parce que goro yi ay jigéen lañu ñun ñëpp ñi nga xam ne njëkk yi ay jigéen lañu. fekkente ne ci njëkk yi cokkaas bay di tas ñooñu ay jigéen lañu góor yi lu ñu mun li ñu mun mooy xëy dem indi ko ci kër gi ñu lekk bu fekkente ne yow da nga indi sa li nga maanaam nga dem liggéey góor-góorlu ñëw kër doo mën a noppalu li muy wax ay soxla naa mbubb bu bu rafet ak soxla naa dàll bu rafet ak soxla naa leneen bu rafet ak manoo ko ñu génn di la tapas naan kii mënuluma dara na ma may sama nga bañ ñu yóbbu la tribunal tribunal jàpp sëy ba di la convoqué guddeeg bëccëg di lay woo mënoo ko jigéen capable la ñu dem ñu naan xarit yi ñu naan ko demal nga xool sa bopp boo xoosee sa bopp soo demee foofu nga dem nga boo demee sa sëy ba dana nga dem xool sa bopp dem tribunal ñu jël ñu jël nga jël avocat xam nga boo jëlee avocat. mu ne dana jël certificat médical boo jëlee certificat médical góor yi ñoom jàpp ko tëj ko amande fu mu teg noonu. voilà nañ bàyyi bi ak borom bien sëñ bi ñu ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant di jéggul wax dëgg yàlla ndax benn waxtu rek la ñu am ñu ngi lay gërëm bu baax di nuyu sénégalais yi fare bitim réew yëpp rawatina ñu ci ànd ak TFM ñu bàyyi avocat yi tontu ci ni mu gisee de façon générale ah tudd leen xëy na directement mais léeg ñu am boobu impression que ni avocat yi daal ñoom xëy na bu nu ci xawoon dandas lëf euh, tan am lan ngay tontu maître Sall maître Diouf. en fait avocat du mooy àtte te juge du ñu góor am na ay góor am na ay jigéen ah. du ñu ñëw rek daan góor gi wala euh, teg daan ci góor ki wala teg daan ci jigéen suuxlu bi la ñuy wax suuxlu bi tax jigéen di jóg ñi may ji tribunal xam nga xam nga loolu ak ñu euh, koy wax yoon ya ngay jaar ak këyit ya nga war a wut Euh, waaw parce que loolu liggéey avocat mooy conseiller nit ki. Mhm. Euh, je crois que tamit bu avocat amul woon tamit divorce na am euh, comme léegi yéen a ngi wax ci reportage bi que Matam bi mu amee tribunal ba léegi. ñu mhm. ñi divorce yi dafa bëre alors que. xëj na ñooñu non divorce xëy na jigéen ñi gis pexe léegi. <laughs> jigéen ñi gis pexe parce que amuñu xëj na dem ba Saint-Louis doon na sore. Ah. amuñu moyen yi foofu Matam quand même c'est une population assez relativement pauvre. Ah. donc amuñu moyen pour dem ba saint di yéeg a wàcc donc bu tribunal bi et tribunal loolu lay jëriñ. Mhm. jege établi bi pour mun ko permettre mu accéder à à ce truc ah. donc euh, loolu société bi xëy na bu amul woon sax day gën a metti am na avocat yu bëri. Euh, man ci laa bokk dematuma divorce dem divorce parce que coono gi fa nekk yàggaay gi muy yàgg te foofu amul xaalis li ci gën a bëri danga nga koy def te yàlla tax. Mhm. parce que ñii ñëw di fase en général amuñu xaalis sax bu ñu la fayee euh, surtout ci jigéen ñi bon euh, metti na et puis da koy dund yow ci sa bopp dundin bu metti mhm. parce que nit ki dina dund dund metti yoo xam ne xëy na du ko wax ca si juge bi yow avocat bu la ko waxee di nga ko dund dund metti ba xam ne des doo ci am na ay tribunaux am na ay trucs euh, ni ma ko waxee monsieur Ndiaye sànq suñu société bi day changer l'homme sénégalais qui était la on ne peut pas dire que nit ki ka fi nekkoon il y a 100 ans wala il y ans nit kooku na fi nekk mënul ne. Mhm. ñu ngi ci dans un monde moderne ñu ngi ci ay internet ñu ngi ci c'est devenu un village planétaire mhm. aujourd'hui le cercle familial la bi ñuy wax tout de suite mënul wéy parce que cercle familial bi dafay disparaître ñu ngi woon ci ah village bi am une concession nga xam ne tu as quatre épouses ak mille enfants qui habitent dans la même concession on vivait de l'agriculture ah aujourd'hui on est dans un ñu ngi ci euh, ville mmh. la famille ça devient ça va devenir nucléaire quoi mmh. qu'on dise et nit ki yar foog naa di ci wax dara aussi ci ci ci jëf la ci ni ngay dundee doo wax sa doom bul naan sàngara fekk ngay naan sàngara mhm. bul wax sa doom bul farantu fekk yow ngay farantu donc euh, loolu société bi bu évoluer mentalité yi évoluer pratique bi évoluer mënuñu ne nañu pour régler sëy yi ak yooyu nañu dellu ca boobu parce que nit boobu nekkatu fa euh, nañu dellu ci s'adapter xëy na non inévitablement inexorablement. Mhm. buñ ko buñ buñ ñu bëgg ko ñu bañ ko. dañuy dem ci loolu donc il faut ñu xool peut-être yeneen mécanisme yoo xam ne yuñ fi mën a teg. Mhm. pour xool comment pallier divorce naka la ñuy def pour divorce bi et société sénégalaise surtout mhm. li may wax lu ci gën a bëri c'est une société masla bi hypocrisie bi. moi je je je appelle ça pas masla mais hypocrisie sociale bi. daf fi bëre du ñu waxante dëgg du ñu jëfante dëgg. te loolu ñu ci wéyul ci dëggu bi ak même gëm-gëm gi. suñu waxee dañoo gëm islam bu fekkee dañ ko gëmoon dañ koy jullee masque yi fees mbedd yi fees bu fekkee ñoo ñoo ko doon jëfee mu reflété wu ci jikko yi am na ci yu bëri tey duñ ko gis duñu gis yenn façon yi ah, ah oui maître euh, ci ñi jàpp ne avocat yi kenn demu ñu des <laughs> ñun avocat yi daal dañoo weex donc <laughs> te ñun defuñu dara <laughs> ñu doon sëy ba yàgg bëggatuñoo sëy kay ñoo def lépp mhm. ku jigi njaagar ñoom ñooy njaag li waa ji wax day wane benn impérialisme bu amoon loolu moo am Matam aussi. parce que je sais que sunu mbokk tukulóor yi sunu makkudu makkudu séeréer yi tukulóor yi. suma jaam yi Faatumata ñoom. <laughs> góor dafa yàgg dominer jigéen foofu. parce que société nga xam ne dañu euh, bëgg conserver la tradition toujours góor dana dominer jigéen te dañu entre le fort. et le faible la parce que ki am doole ku góor ki bu doon noot ku jigéen far tribunal am maatam loi ba ñëw dañ sauvé jigéen ñi nga xam ne dañu doon noot bu ñu bëggee tas dañu ne duma naan dellool li ñu la mayoon xam nga joxe milliard ci sëy mhm. tas ni delloo ma amul de mhm. maanaam reprendre may nangu amul. ci ci ci sëy. Hmm. yoon daf ko dàq. ok mais sunu boo demee sunu sunu dëkk yi xamuñ loolu dañu dañaan hmm. ah li laa ci defoon. ndaw si de sonn na trop waaye bala mu dem. Hmm. waa ji dama delloo li ba ci defoon yëpp. defoon naa ci lal defoon naa ci euh, machine defoon naa ci rajo mayoon naa ko deux cent mille mayoon naa ko lee. ndaw si amul benn revenu day nekk otage. kon ndaw soosu bu ko benn avocat conseillé. ni ko am nga droit dem tribunal te doo delloo dara. ku mel ni ki waxoon léegi affaire bi du baax ndax bëgg ndaw si xam droit am te comme ni ko Fatoumata waxee ñun dañuy conseil ñun ay conseil lañu dañ lay xelal da ngay jaar. doo raamul see ñaar dërëm te dañ ci génn ndax sa jëkkër bàyyi na la fi ay at xëy na moom bàyyi na jabaram ay at te bëggoon ndaw sa dem boo xam xëy na du moom du cas boobu. Mm-hmm. mais dafa am cas yu mel noonu bu ndaw si xamee ay droit am nag xam ne yow bàyyi nga lépp ñaari at. ndax sa am na droit demander divorce mm-hmm. ñaari at absence mm-hmm. ñaari at boo ko bàyyee jigéen parce que fukki at ak ñaari yof fi léegi fukki at juróom-ñaari at amaguma kayit nañ ma nekk mm-hmm. mais yàlla dafa bëri yërmande nit ci boppam lañ dul teg yenn coono yi vraiment yu mel bu amee nañu jéggal ndaw si parce que lu fa am ci diggante ba ëmb mën na fa am accident mën na am te nit nit rek la ñu ne ndaw si moo bon fekk nag waaye condition l'occasion fait le larron condition yi ñu bàyyi na aussi mooy ne musiba bi loolu mooy teg musiba a mhm. gàcce ki nga xam ne ëllëg boo ko bàyyi woon démb gàcce du ko fekk du ko ci fekk tey. très bien euh, ñu daal di dem ci régi bi laata ñuy wéyal waxtaan bi ak ñenn ci doomu Sénégal yi nga xamante ni Kambel jot na daje ak ñoom ñoom it am nañ seen xalaat ci li nu fokk ne bokk na ci liy tas sëy ndax ni ñu ko waxee ci jël benn waxtaan wi facteurs yi bari na wax dëgg yàlla euh, wax nañ ci wàllu matérialisme wax nañ ci góor ñi nga xamante ni ñoom it également dañuy dugg ci loo xam ne mënuñu ko léeg-léeg ñuy daje lay jabar ca benn sax attanuñu ko euh, ñu déglu ñenn ci ñoom sénégalais lu ñu xalaat ci lii di sëy tas gi ak Kambel Dieng vraiment moi je trouve que bu nekkee ñaari nit yi nga xamante ne ñoom rek ñoo décidé sëy y aura pas de problème mais c'est la belle famille c'est peut-être ma famille tu vois c'est peut le euh, les voisins parce que ñëpp ñoo ci am xam nga lu ñuy wax influence extérieure bi mais si c'est seulement les deux personnes qui sont concernées et que ñoom ñoo décidé sëy ñu bàyyi leen ñu sëy amul problème sëy Sénégal moom dafa compliqué torop torop torop c'est pas pour rien que maintenant Euh, muy sénégalais bi muy sénégalaise bi on est en train de chercher ailleurs. mariage mixte maintenant ils sont en vogue parce que vraiment sëy Sénégal dafa métti man j'ai divorcé il y a à peu près euh, six mois ça m'a pris du temps parce que moi je me suis séparée depuis 2009 et j'ai pu obtenir le divorce en 2013 métti na trop amee ay doom mais bon euh, bien sûr ñu ngi man j'ai pu obtenir euh, la garde des enfants parce que li tax ñu divorcé en fait c'était pour ça que j'ai obtenu la garde des enfants et c'est mieux comme ça aussi. topp sama jëkkër jàpp sama njaboot jàppali ko ñu jàpp sumu doom yi yar ko te papa sama yaay moo ma mayoon ngir yàlla ma sëy tëppoo ma ko ngir xaalis tëppoo ma ko ngir ay leneen daal sey bi laa topp daal su amul ma uuti ma jàppali ko tëpp sumu doom yi yar leen. moom mooy sa sa buur daal. waaw lépp lu te yàlla tax. xëy rek di force ni à cause soxna si indil ma problème di ma indil problème yoo xam ne xaw ma su ma ànd ak nit mi dama waroo ànd ak kii su ma guddee mu indil ma problème su ma solo mu mer. mais loolu fiir bi la quoi. waaw dafa mel ni fiir tamit mu ngi si am naa si trois doom. billaay daf ma metti ñoom rek laay xalaat. ñu ngi seen yaay. mooy dañuy ñëw si man di dem seen yaay. doon sëy divorcé la. Uh-huh. waaw la moo tax nga divorcé. man sama jëkkër daaw ma defal dara. daan defal ay gelam ma koy gis dégg nga mu may metti torop loolu la. est-ce que du fiir rek moo taxoon nga defal kenn bu kenn doxaan mais gaa da ngay defal ki la sa biir kër ba pare ah nga war a mën a dem defal keneen lool mooy yoon ma muñ dem ba sës ma divorcé loolu kese la. mais est-ce bi nga divorcé def nga li war a divorce ñëw tribunal ak affaire. est-ce woon papier nag loolu la. defoo woon papier de mariage loolu kese la. ku ci am jëkkër ju baax tamit war nga ko mën a téye bu baax ah sëy moom waa mas naa ko dund ba pare dundu gis naa samay copines yu ko dund soo ko gisee nag man dama jël parti bi ñaari parti yëpp laa ko féetale ci góor ak ci jigéen parce que boo ko gisee mooy dëgg moo doxatul ci relation. communication aussi sam manque beaucoup si ñaari côté yëpp parce que mënoo yor sa jabar aussi nga ne da ngay liggéey ñëw soo wàccee. defaral ma ma lekk nga lekk jubal tëdd sa néeg doo waxtaan ak moom ku jigéen ki aussi du ñëw laaj jëkkër gi sa journée naka la demee yooyu et tout ça parce que nit ki aussi mën nga jóge bureau ñëw te doo nekk wala nga am fa ay problème soo amee jabar joo xamante ni aussi du ñëw di xool wala muy contribuer wu ci sa liggéey ak yooyu yëpp tu te dis que ni yow kii intéressé wu ci lu dul li nga am la intéressé wu te loolu mën naa ne du relation soo ñëwee aussi jigéen mën na yendu xolam du neex wala muy xalaat yeneen yu naqari wala muy xalaat yi ko manqué ci kër gi yow góor yaa ko mën a complété parce que boo ñëwee ni ko tu as passé une bonne journée waxtaanal kafaree ko euh, jigéen lu ko nax yomb na jonge waaw et tout waa ci ñaari waa góor day jonge comme ni jigéen di jonge aussi kon communication bu amee mën naa ne toujours lu bëri même problème bu ngeen ko amee du ngeen ci dugal jàmbur yi ngeen amee problème mën ngeen ko régler ah, ah, seen manière boobu ci seen biir kër sans autant ngeen ci dugal kenn soo gisee tamit divorce aussi di gën a bari mooy si ñaari camp yëpp ku jigéen ki bu dugalee ay copinam problème day am ndaxte lu tuuti rek ñu ni ko da nga ñàkk fayda bu doon man ku góor ki aussi dañ naan ko euh, ay xaritam ay propre copain mën nañ ko ni da nga ñàkk fayda bu doon man parce que sa jabar lim lay def yaa ngi dégg bu ko defee na ku ci nekk ci sa morom commencé gis sa bopp ngeneen ñi waa waa en dehors de seen ménage ngeneen ñi bu ko defee ku ci nekk commencé calculer diw de waxoon na ma ni su ma amoon fulla ci lii ngeen commencé nag ku jigéen ki di wane ni man man nii laa mel. ah ku góor ki di ko wane ni nii laa mel toujours nag foofu la problème bi di amee. même l'avocat que tu vas prendre il va te proposer de dire incompatibilité d'humeur mais c'est pas le cas. c'est pas le cas vraiment le le le le le vrai problème quoi mais le vrai problème il est ailleurs. kontaan naa trop mu nekkoon xalaatu ñenn nit également ci askan wi junj nañ fi communication bi ñu waxtaanee léegi wàllu incompatibilité d'humeur wax nit de bu ngeen bokkul moom ay humeur dafa daal di kër ga euh, ne xaj ak muus moo tax ñu wax sànq affaire mu ñëlante aussi nit ku ne da am loo yàbbi ba leneen li foog naa ni li ñu faral di wax wolof nit ki li kii lu mu ŋànk mu dagg ku mel noonu rek moytul ma ko. Hmm. yaa Oustaz wala il faut que ngay yàbbi di. waaw dëgg la El Hadj Assane xam nga euh, liñ fi wax sànq dafa bari euh, te bëggoon naa ci apporter benn contribution rek en hmm. tant que nitu diine Euh, mooy l'islam nangu na summeeku. Mm-hmm. Euh, maître wax na sànq ne loi bi nanguwul euh, góor gu ñëw jël fas ak jabaram jabar ji delloo ko alal. Mm-hmm. loolu loi bi loi bi nanguwu ko. mais loi bi nga xam ne moo jóge ci sunu borom te Seydina Muhammad jàngal na ko am na nu muy tëddee loo xamante ni bi jigéen ji dana delloo alal pour mën a jot ci boppam pour mën a dem doxi la na loolu na xëy na du sujet bi tey mais ma fàttali sama mbokk daara yi seetaan wane ni loolu am na mi ngi tudd alxuloo ci arab moom la mbokk bi tudd léegi tudde ko summeekoo summeekoo nag ci diine ko yëpp ku jàng diine da ngay gëm ne summeekoo am na parce que yonent bi non seulement jàngale na ko mais daf ko pratiquer ci jigéen bu meloon noonu euh, beneen bi ma bëgg a wax ci soxna si sànq mu wax ne wàllu atte euh, ne moom daf koy xaw a ragal sax mais atte mënul ñàkk ci kaw suuf atte mënul ñàkk ci kaw suuf parce que fekk am na ku néew doole am ko am doole rek fekk yoon ñëw ci diggante bi pour génne àqu ki ñu nar a néewal doole kooku nag di atte te fekk ne dafa dafa bëgg génne génnee dëgg bi yonent bi promettre na ko tuyaaba yu bëree bari promettre na ko tuyaaba yu bëree bari su góor góorloo moom def effort bu baax a baax a baax ba jéem a góorgóorlu ba jege dëgg gi ñaari tuyaaba lay am. tuyaaba yi jege dëgg bi ak tuyaaba góor góorgóorlu bi. su juumee tamit am na possibilité ñu baal ko fekk mu ngi góor góorgóorlu. loolu bëggoon naa ko koo xam ni ni ma ko waxee sànq juum de bonne foi. juum de bonne foi waaw koo xamante ni du jublan ko xam dafa manœuvrer wuti pexeem tëral mbaa ñu ger ko mu def la muy def. ok mais fekk na góorgóorlu na. parce que loolu it am na mu àtte noo xam ne tracé dëgg naan ñu ñu mbaqu sal la ngay daal di def loolu ba ah, bokk ci ah. beneen bi ma bëggoon wax mooy dañoo tudd lu am solo ci biir ménage bi sànq eh, njaay tudd ko ah. mooy moo mooy riyaabul xiwaar mooy li ñoo tuddee manque ñàkk waxtaan ñàkk waxtaan am na jigéen bu ko wax léegi ci biir waxtaan bi alaaja san hmm. gis nga suñu sëy yëpp li koy tas mooy ñàkk waxtaan dañu bàyyi couple bi kese ñu geral ko seen bopp Euh, dëgg la soxna si nee na lañ doon dund bu njëkkoon mënatuñ ko woon dund. parce que papa yeeg maam yeeg nijaay yi bokk benn kër bi mënatuñ koo dund mais am nañ ay weekend pour dem rendre euh, seeti leen. mu xool ci sa kanam xam ne tey ji yow sa kanam gi belliwul mu kotuwaaye la waxtaan ak yow wax la dara moom la yàlla di tudd ci alxuraan di wax ne nañu nañu nañu ci associé ci famille bi boroom xel yu rafet yi pour ñu jéem a lijjanti famille bi très bien euh, ñu ñu ñu jox euh, maître Sall kàddu gi parce que mu ngi bëgg a leeral ni également euh, tribunal du rek tasukaayu sëy manees na fa it def tentative réconciliation en fait obligatoire ah, fexe jubóole ah, c'est ngeen ñëwee du ñu rek tas ah. dafay woo ñaar ñi jëm leen jubóole te jubóole boobu pour mu gën a rattax ak gën a yomb bon man du sama xalaat mais yoon dafa ne c'est hors de la présence des avocats maanaam avocats yi dañ leen di génne hmm. ñaar ñuy sëy rek ñoo fay des ak juge deux trois mois bu ñu xoolee ne xëy na am na chance pour ñu réconcilier wu dinañu renvoyer dàq dossier bi ñun ñi dem waxtaan xel yi dellusi si et souvent dina am aussi juge yu réconcilier leen ñu raje procédure bi dellu du ku ñëw tribunal rek di nga fase dina am ñëw ñu ñëw ah, ba pare bàyyi dellu jubowaat am na ok mm-hmm. sëñ Euh, ci wàllu ñàkk communication fa la ñu jeexale mm. sànq ñu ngi wax euh, hors antenne que ni télévision yi léegi ndax kër yi nga gis ñeenti télévision am waxuma la waxtaan ak sa jabar sax waaye say doom sax boo xefee dooto waxtaan ak ñoom ndax ku nekk sa néeg yaa ngi sa télévision yaa ngi sa iPad ak yooyu xaw ma di surfer rek internet gi loolu lépp dafay dafay dàq communication loolu moo soo seetee sax waxuma sax diggante jëkkër ak jabar diggante bàyyi ak doom ak ndey ak doom sax daf mm. koy yàq mm. ndax ku nekk da ngay dem teg donc doo am temps xool sa doom wala xool sa jabar ba mën a euh, liir ci moom mhm. ndax am na lu ko métti lu ko méttiwul mhm. beneen bi aussi mooy maanaam sooy fajukaayu mer la mhm. coow li moom su naree baree rek nga dem fële taal sa télé <laughs> wala taal sa iPhone wala ah. sa truc donc yow doo am conscience ni yaa ngi yàq maanaam li ñaan sëy bi nar tas file juróomi at commencement bi tey jii lay commencé ci seetaanu télé bi ngeen di gas di jëm foofu communication am na ci solo mais aussi maanaam jikko yi am na ci solo. Mhm. xam nga nit lépp looy dugg te gëmoo ko. amoo ci pas-pas. Mhm. amoo ci loo ci visé maanaam yaa ngi ci am ay objectif à court terme naa ci sëy dugg ci sëy bi am ci doom. am na jigéen ñoo xam ne mel noonu mm. xaw nañu kii naa ci am doom su ma amee doom nag après fu mu yem neex naa ci am kër fu mu yem neex naa ci am oto wala ku góor ki ku jigéen ki mënuma ko jot naa ko takk rek su ma ci demee ba kile rek mm. su ma paree rek weq mm-hmm. bëri na fii actuellement ci Sénégal mm-hmm. et la plupart ñun ñi nga xam ne am na ñuy ñuy liggéey di counseling ci couple yi la plupart am na loo xam ne duñ ko wax yenn saa yi dañuy dugg ci biir waa ji la mu doon seet ci yaakaaroon ni su ko takkee dana ko fekkatu ko ci mu commencé chargé tapas di indi jukko yoo xam ne ku jigéen ki amul da nga gis ku jigéen ki day lemu sax ndax bëgg toog ci sëy bi fekk ko góor ki pare na ci moom xeemeematu ko leneen moo nekk ci bopp bi et yooyu da ci am solo ni mu amee ci góor ki noonu lay amee ku jigéen ki ah. waaye li ëpp solo pour maanaam euh, kii am il faut que ñu delloo si ay cadre ay structure yoo xam ne nit ñi suñu amee problème ñu mën fa dem ay pénc jàkka ji mën na ci bokk maa xalaat aussi la famille xale yi famille mën na parce que yenn yenn couple yi boo ci màggee wala yenn famille polygame yi dund leen également dafay am njeexite ci yow boo màggee waaw dana am dana am problème bu fekkee nii couple yi polygamie bi boobu am na problème mhm. man bon ça c'est c'est mon point de vue en tant qu'intellectuel conservateur africaniste laa lay wax mhm. polygamie réalité sociale boo xam ne fii lañ ko fekk liy yàq ci biir nekkul ci ci institution mi nekk ci nit ñi ci nit ñi la nekk. Mm-hmm. donc ay choix la. kee ku jigéen ki am couple monogame bi dëkkee xeex. xeex xuloo yëpp xale bi di dund du ci dund lool même chose lay am. Mm-hmm. maanaam ma je n'attaque pas je ne critique pas la polygamie la. Mm-hmm. nit ki ku nekk xale bu jigéen boo xam ne yaakaar nga ne nekk ñaareel yow arrangé na la. soo ci duggee man dama lay les sa liberté ak sa choix du mën may juger sa ay ku góor kii su ko bëggee noonu. Mm-hmm. mais lan laa la bëgg wax ni la jàmm su amul ci couple. Mm-hmm. saaga dóor xas. wax wax ju ñaaw. Mm-hmm. kooku couple bu mu mën nekk ngeen nekk fukki jabar ak benn jabar ci am. couple boobu moom fala budde fi muy mujje du neex. donc nit respect war nañu respectante war nañu wegante yéenante jàmm. ba pare nag. waa jur yi jàpp ci. léegi dañuy wax rek waaye sëyu léegi yenn saay xale bu jigéen bu dugg ba ci biir. ñun la kii mënu laa yor. yow xool nga sa bopp peese nga sa bopp. Mhm. kii mënu laa yor. wala waa ji dem nekk ba ci biir et cetera mu noo jabar ji jabaru frère la. Mhm. nañu fexe leen ba mu dem. Mhm. respecté wul sama yaay respecté wul sama mag alors que. xamuñu ni maanaam effort yi nit ñiy def pour des ci sëy bi. famille yi waroon nañ leen dimbali. Mm-hmm. waaye dañuy seet ñoom li leen arrangé comme li may wax ku nekk bala nga ci génn. seetal seetaatal bu baax est-ce que man mii di la wax ni la bàyyil sa jëkkër bi mhm. dinaa la wutal jëkkër mhm. est-ce que dinaa la jox dépense mhm. est-ce que dinaa la yaral ay doom uh-huh. est-ce que dinaa la assurer sa avenir ak ku lay wax naan la bàyyil sa jabar beneen jigéen la lay indil waaye indil la jabar uh-huh. ndax jigéen moom mën nga ko am jëkkër moom mën nga ko am waaye am nit am xarit am dëkkandoo am voisine de chambre li ma lay wax sa voisine de chambre la sa partenaire la c'est la maire de tes enfants c'est ton ami c'est lépp la kooku <laughs> du bëri duñ koy hélas ñu jeexale kon wàllu solution yi sëñ Ndiaye je sens que c'est un véritable romantique <laughs> maître yow ci wàllu solution rek ñu yëkkati waxtaan wi ak maître Sall ak oustaz Mor Thiam lan nga gis ne xam naa ni moom euh, tas du fi jóge mais lan moo koy gën a néewal lim bi wàññi bu baax waaw gars dañuy wax communication mais foofu xaw ma d'accord ak ñoom ndax mhm. communication mosul jóg ci couple communication mooy tax mariage am ndax bu dialogue amul waxtaan amul sëy du mën a am parce que il faut ñaar ngeen wax ba d' accord. loolu mooy boo bëggee rek xam boo bëggee jigéen di ni naan jàpp gel bi. voilà kon jikko yi wax ju neex ju ne. Euh, bu bu bu cëpp ni ko. kon dialogue dañu dem ba ci biir ay jikko feeñ. voilà soit fiiraange gu metti. Mm-hmm. soit bëgg alal ju metti. soit jéppante mën na am. Mm-hmm. soit histoire yu bëri. parce que bu xuloo bëree coow bëri. ah di diggante dina ñagas. Mhm. te bu xol neexul xëy na waxtaan du mën a am. lu tax jikko yi feejul woon ci bëggante beeg labet gi xam nga loolu aussi nëbb gi ak hypocrisie bi ñuy wax sànq naa feex gi. gëw ma gëw ma sax ni hypocrisie la xam nga ci biir sëy c'est un peu complexe. Mhm. mën ngeen bëggante dem ba ci biir jikko parce que am na jikko kañ lay génn jëkkër ji mën na am liggéey bu bees di guddee wàcc. Mhm. ndax si comprendre loolu. te du ko mas a comprendre par exemple mën na indi problème ndaw si mun na am liggéey daawul liggéey am liggéey ja jëkkër ji mënul supporter keneen di ko toggal ku dul jabaram te jabar yi dafa war a xëy di liggéey di wàcc léegi situation mën na changer situation xam ne avant ñuy marié amutoon entre temps moom yeneen situation yu bees suuf yi aussi mhm. léegi bu ko defee bu fekkee bu leen adapté wu à la situation mhm. te mu am clash donc il faut que nit ñi jiital la volonté de vie commune. dañoo bëgg a nekk am ay doom ànd dem fu sori. que donc man la base pour divorce bañ a am mooy muñ rek. muñ muñ muñ. parce que ku muñ mooy muñ. ndax boo muñee muñee muñ dem même mu doon sa jëkkër day dem di génn di ngoro di dem lu di ko neex dem ba yàgg day rus am kersa ñëwaat bu dee ndaw si dafa toogoon di def ay yu dëgër xaw a rëy. li la nga feccal ko li la nga kii ko tàpp ko draye ko mu wàcc si ndax jigéen moomu rëy mhm. li la nga feccal sa jabar ko di ko gis nga man mi la nekk sa kilifa maa ngi ne di la di la poojal <laughs> parce que dañ ne jigéen day joŋe waaye góor it day joŋe si ci biir néeg bi la lépp a xaj <laughs> kon nañ yërmante bëggante uh-huh. muñalante jàmm am loolu la laa ko gisee man merci beaucoup maître El Hadj Diouf <laughs> maître ci wàllu solution yi laata oustaz Mor ñu tëj waxtaan bi ci wàllu solution yi ne ak soose yi dañuy faral di wax ne que nax mooy indi jabar ci kër waaye dëgg moo ko fay téye mhm. et euh, xëy na mbëggeel gi peut-être que début bi la mais loolu lalul sëy mhm. nit taaram je crois que jikko la mooy taar mhm. te euh, comme souvent dañuy wax muñ dañ ko xalaat ci jigéen mais comme El wax jigéen ak góor la il faut ñu muñalante bu daay duñ jël yëpp yëpp sëf cause dafa mel ni sëy bi jigéen bi moo ko war a yenu rek aaki moo ko téye ko no bu fekkee ne xol yi rafet nañu bu fekkee ne dëggoo dëgg am na ak waxante dëgg am na et bëgg euh, wéyal foyer bi ngeen euh, tabax am ci ay doom te ngeen bugg ko taxawal bëgg mu dem fu sore bu ci ku nekk jàppee bu ci ku nekk euh, je veux dire bu fekkee ne ku nekk da ko gëm. dundee ko je crois que dina am yi mu wàññi lu bëri. ci ci responsabilité bi la war ci ci sëy bi mm. ci sëy bi très bien. yow saas ngir wàññi lim bi ba incha allah bu ñu fa dajewaatee du ñu fi nekk naan ay deux cent ki quatre cent wala trente trois par jour quand même. waaw waaw loolu bokk na ci mooy ñu seet ci xale yu tuuti yi. Mm. ñi nga xamante ni ñooy victime divorce bu am bu ñëpp braqué seen bët ci xale yu tuuti yi xam ne toujours ñoom ñooy gaañu loolu dina bokk ci li wàññi affaire bi beneen bi ci des mooy góor ñi ñu sincère te tribunal dimbale leen lan laa tuddee sincérité góor mooy bu bëggee takk jabar na am courage yu dem takk jabar bàyyi takk suuf parce que takk suuf mooy indee guddee tërsi su indee guddee tërsi ndaw si yaa ko tàmmaloon muy mu lay gis vingt léegi vingt trois la lay gis indi nga problème léegi bu ñëwee bu la waxee nga ne ko ci ma merde nangam nangam nangam. mu indi beneen coow. loolu mooy benn bis bi ci des mooy tribunal nañu xoolaat loi bi ñu tëral ni nit ki bu am na droit bu fay signé monogamie dootu ci jóge te bu sekkee polygamie la mu jógee ci. loolu nañ ko xoolaat parce que ñun tamit dañu loolu nañ ko xoolaat. yónnee naa la ci madame Sall yónnee naa la El Hadj Diouf yónnee naa la ci loolu nañ ko xool bi ci des El Hadj Sall. ah léegi léegi léegi ci buñ ko voté woon fii léegi mun ma lay gagné. léegi beneen bi may mujjee mooy góor ci lislaam du bu fasay jabar rek génne ko kër gi. ci lislaam góor bu fasay jabar. du ko fase da koy génn kër gi. da koy fase jox ko dépense. ngeen bokk lal bi bokk mbàjj bi mu togg añ bi togg reer bi ngeen bokk sàngoo ci biir mbàjj bi. parce que yàlla loolu la bëgg. li may wax borom daara yi xam nañ ko. man réglé naa ci benn kaan waa ji fase jabar ji nga baal ma asan. waa ji jabar ji ne day génn kër gi man noo du génn kër gi parce que moom la yàlla waxoon ne dina togg añ tey. muy génn ma dab ko ne ko lan la waa ji gën a bëgg mu ne ma suppu kàñña ma ne ko toggal suppu mais bi mu toggee supp kàññee ndaw si ba léegi mu ngi ci biir kër ga. <laughs> xam naa waa ji sekkeen la wala njaween la ñu ngi gërëm en tout cas ñëpp ñi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ci ci waxtaan wi takk suuf yi sëñ Lahabib oustaz junj na ko gars yi moom takk suuf la ba xamul kañ la ñuy aaye xanaa du doon guddi gi de. Eh, ah? ñàkk fay de. Ah, ah, ku nangu ñu takk la ci suuf. mais l'islam wax bu dañee bi jeex. Euh, foog naa sax foog naa oustaz l'islam l'islam sëy sax la la la nangu ñu tëggi tabalaak siiwal ko. kon ku nangu ñu defal la ko suutare sa affaire la. <laughs> non mais euh, c'est que peut-être que amuñu solution rek. Mm. c'est que absence de moom <laughs> moom nekkoon. jërëjëf jërëjëf lax bi jërëjëf maître El Hadj Diouf maître Fatima Sall ñu koy gërëm ak yaa oustaz euh, Mor Thiam euh, et toute l' équipe de la TFM di leen gërëm mbokk yi di jégalu ci lépp lu ñagas ci wecci konté bi di ñaan yàlla din ko waxee yëf yi daal di fi doxee néew nag waaye tas dagan na takk dagan na yàlla yàlla defar say yëpp communication am te ñu muñ ndax jamono metti na loxo yi jotatul ginnaaw yi nañu muñ nag wax dëgg yàlla ñu fanaan jaam